internautes Sans Limites TV bienvenue dans votre émission les Buzz Web alors comme promis les actualités les plus marquantes de la semaine moom laay indi rek di leen ko tojal ba mu leer nañu euh, ñu daal ci koy dooree ak communiqué bi nga xamante ni moo soxal lépp loo xamante ni rek moom mooy di feebaru mbas coronavirus fii nii ci réewum Sénégal euh, ci tay ci àjjuma ji 25 septembre 2020 ministre de la santé et de l'action sociale nag daati ne jébbal ay résultats yi nga xamante ni moom la ñu def ñu jàpp rek ni euh, sur 1170 tests réalisés 23 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,97 pour cent. Les cas positifs sont répartis comme suit. 7 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré à l'AIBD de Diass, 15 cas de la transmission communautaire répartis entre fi nga xamante ni moom moo di ca Bignona Cambérène Centenaire Dakar Plateau Joal Kër Massar Mbao Wakam Pikine Richard Toll Sicap Dieuppeul Sokone Caajaay ak Tiwaawan ak fa nga xamante ni moom moo di ca Yoff 92 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 18 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation aucun décès n'a été enregistré ce jeudi 24 septembre 2020 l'état de santé des autres patients hospitalisés est stable À ce jour, 14 839 cas ont été déclarés positifs, dont 11 910 guéris, 304 décédés et donc 2624 sous traitement. loolu ministre de la santé et de l'action sociale daa ci xamle ñu daa ci exhorté waat rek au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective pour ñu mën a mucc ci li nga xamante ni moom moo di feebaru mbas bi. bu ñu jugee foofu ñu daa di jàll ak yéen ci beneen actualité bi nga xamante ni le président Macky Sall moom moo génn rek di asséner ses vérités invité au responsable ping de son parti euh, jeudi passé ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fële nga xamante ni moom moo di alliance pour la république euh, lors de la réunion du secrétariat exécutif euh, national Macky Sall daati daal seen kaw ginnaaw bi nga xamante ni waa l'observateur ci boppam ñoom ñoo ko xamle muy wax rek ni ginnaaw bi nga xamante ni trésorier de l'APR Abdoulaye Badji dafa doon présenter l'état financier du parti à l'apériste ci ki nga xamante ni moom moo di Macky Sall mu daati piqué rek euh, di leen xas rek ni leen amu leen li nga xamante ni moom moo di jom maanaam vous n'avez pas honte ndax ñoom ab cotisation boo xamante ni dañ koy waral di amaan la euh, chaque mois ba nga xamante nii dina leen indil euh, valeur bu toll ci 6 millions cette fois si dañoo ñëw rek fekk fa li nga xamante ni moom moo di un million maanaam ñu bëri ci ñoom daatu ñuy cotiser loolu nag moom moo metti Macky Sall ba mu daati jukk rek dal seen kaw ñu daal di jàll ak yéen ci euh, beneen actualité bi nga xamante ni soxna Aïda Diallo moom moo ko jiite euh, bokk na ci màggal gi nga xamante ni ma nga koy wàcc fële nga xamante ni moom moo di ca ngaabu comme nam ko defee woon nëga ni si euh, daaw ki nga xamante ni moom nag moom moo di Serigne Mbacke ngaabu ñu gën ko xam ci chef de village ba nekkee fële na la ca diwaanu ngaabu moom nag moom moo génn di xamle que ni les propos yi nga xamante ni moom la mooduloo bu ngaabu daa ci génn ci soxna Aïda moom rek la engagé waaye moom chef de village bi waxul dara Aïda Diallo ndax tere wu ko li nga xamante ni moom moo di màggal gi waaye Modou Lo rek moom dafa génn rek ni euh, personne non grata la ki nga xamante ni moom moo di soxna Aida Diallo fële na la ca diwaanu Ngaabu waru faa li nga xamante ni moom moo di màggal gi waaye ki nga xamante ni rek moom moo di Serigne Mbacke Ngaabu nekk chef de village ba daati nay euh, génn rek moom di xamle rek ni euh, propos yi nga xamante ni moom la Modou Lo daati wax moom lay engagé ndax boo xoolee daaw ci màggal gi li nga xamante ni moom la ko Aida Diallo célébré maanaam ñu bëri daati nañ koy apprécier jàngale ndax woo nañu bëri ay taalibe euh, di leen jàngaloo li nga xamante ni moom moo di ay xasida ba pare rek daa di fay génnee li nga xamante ni moom moo di ay bernde yu am solo daa di koy jébbal askan wa nga xamante ni dañuy yeewoo fële ca diwaanu Ngaabu moom Serigne Mbacke nag lu mu xam le nee na Aïda Diallo bu fekkee dafa nekkoon fële na ca Ngaabu di fa célébrer màggal gi à l'encontre ko ki nga xamante ni moom moo di Serigne Touba euh, santaane euh, du ko bàyyi benn yoon rek mu fay amal ak màggal moom Serigne Mbacke nag nee na daa di avertir entourage ki nga xamante ni moom moo di xalifa général des mourides avertir en même temps ñi nga xamante ni ñoom ñoo di gendarmerie ba rek pour ñu préparer wu ci màggal gi ndax bu fekkee dafa nar a am ay tension ndax soxna Aïda Diallo mi nga xamante ni daf ko nar dafa nar a organiser waat màggal 2020 fële nga xamante ni moom moo di ca diwaanu Ngaabu les conditions et interdictions qui attendent à soxna Aïda Diallo et son clan à Touba ki nga xamante ni nag moom moo di sa Aman daati nay la comme personne non euh, ci màggal gi euh, ginnaaw bi nga xamante ni daaw def na fi loo xamante ni kenn sant ko ko te ki nga xamante ni moom moo di xalif général des mourides daati rafetlu ko benn yoon ndax ginnaaw bi nga xamante ni Cheikh Béthio daati nay génn àdduna li xalif bi di santaane woon rek mooy doomam ji nga xamante ni moom moo di Serigne Saliou Thioune euh, moom moo war a jiite njaboot gi képp koo xamante ni góor la nga wala ngay jigéen mag ndaw rek daati bootu ci ginnaawam waaye boo xoolee soxna ayda Diallo defu ko dafa dem ber ab kalawam jël yeneen soxna yoo xamante ni ay soxna Seex Béthio la woon daati leen teg ci eh, ginnaawam ba pare wut ay taalibeem di amal ak màggal fële nga xamante ni moom moo di ca diwaanu Ngaabu te nee na boo xoolee xalif général des Mourides li nga xamante ni moom la waxoon daaw ca xew-xew boobu nga xamante ni juróon na coow eh, ci entre eh, soxna ay da jaalo ak Serigne Saliou Thioune moom lam ci waxoon rek delluwaatu ci ginnaaw benn yoon mooy maanaam na Cheikh Saliou Thioune daati jiite jigéen ñi jiite ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taalibe yi góor jigéen mag ak ndaw waaye Aida Diallo nangul bootu benn yoon euh, ci ki nga xamante ni moom moo di euh, Cheikh euh, Saliou Thioune ba loolu amee nag soxna ay Aida Diallo daa nay génn ci ab audio boo xamante ni daa tinay fuitee ci réseaux sociaux yi muy xamle ay taalibeem rek ni leen nañu durus bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di xasida yi te boole lépp ak patt maanaam bu kenn tontu dara bu kenn wax dara ba nga xamante ni yegg nañ rek ca bésu màggal ga buñ jugee ci soxna ay Aida Diallo ñu daal di dugg ak yéen ci actualité politique li ci gën a fës bokk na ci Aïssatou Diop Fall mi nga xam xamante euh, fan yi mi ngi def à la une des journaux rek euh, ci euh, ay recadre yoo xamante ni mi ngi koy def ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko lu mu koy xamal rek bokk na ci na defaraat li nga xamante ni moom moo di communication ndax boo xoolee Sénégal dañoo am ay valeur ay morale ak li nga xamante ni moom moo di wormaal nit surtout ki nga xamante ni sax daf laa féete cëru baay nee na moom amul loo xamante ni def na ko wala mu wax ko fi lu ñaaw ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ndax nee boo xoolee Ousmane Sonko nekk fi rek moom benn opposant bokk na ci opposant yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réew mi yor seen micro lu leen neex ñu wax ko nit ñi te ñoom kenn amul droit wax leen lu leen neex nee na fan lañ teg Ousmane Sonko lu ko neex lay wax ñëpp te moom Aïssatou Diop Fall amul droit génn wax ko dara parce que nee na boo xoolee li nga xamante ni moom moo di géew politique gi moom opposition bi bu nekkee moom moo ci ëpp lu muy wax te en général lu muy wax ay wax yoo xamante ni yu tegginewul lay doon ndax bu demee bay wax ay moroomi papaam dañ leen war a fusiller dikkaat ci ay propos yoo xamante ni Sonko moom moo ko yëkkati ci woon uh, wax ko ñoom Abdoulaye Wade nee na kon kooku xam nga nii amatul limite donc ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko mënul taxaw ci réseaux sociaux yi di wax lu ko neex uh, te ñeneen ñi amuñu droit ñoom tamit wax lu leen neex ci moom. moom Aïssatou Diop Fall sax dem na ba nga xamante ni nee na propos yi mu génne ci uh, kaw Ousmane Sonko bu fekkee ay propos yoo xamante ni daf ko offensé nee na rek na ko porté plainte moom ragalul benn yoon a dem wuy ji. actualité fait divers xewe fële na ca diwaanu Mamel mu mel ni rek askan wa fay Euh, yeewu askan wa fa yeewoo dañoo yeewoo ak li nga xamante ni moom moo di naqar ak tiis ginnaaw bi nga xamante ni ab jëyi daati na fay am di as ndaw soo xamante nii rek dafa tëjoon euh, ay doomam maanaam ay seex ak doomam joo xamante ni mi ngi am lu toll ci euh, ñeenti at ñoom la fa tëjoon nag daati déposé ab xaritam boo xamante ni da doon ñibbi mu koy yóbbu fa li nga xamante ni moom moo di ca aéroport Blaise Diagne moom nag mi ngi génn këram ay boori 19 heures daati tëj xale yi ci biir apartement bi waaye benn seex bi bi rek da doon fooye li nga xamante ni moom moo di ab télécommande télécommande bi nag daa ci wadd ci côté balcon bi ba mu koy jéem a yóotu nag pour jël ko ca la daa ci daanu ab deuxième étage daa ci fay jaare ñàkk bakkanam ki nga xamante ni moom moo di ndaw si nag ba mu ñibbi ñibbisee fa la fekk gendarmerie ak li nga xamante ni moom moo di sapeur pompier ñuy évacuer li nga xamante ni moom moo di kooru xale boobu noonu waaye ñu jàpp rek ni moom elle est sous le waaye rek yoon tegu ko loxo benn yoon actualité people li ci gën a fës dañ koy daati dooree ak Sidiki jabaate mi nga xamante ni daati nañ koy jàpp grâce euh, ki nga xamante ni moom moo dima ex compagne am bi nga xamante ni moom moo ko dénoncé ñu daati koy arrêté euh, le lundi 21 septembre 2020 par la brigade d'investigation judiciaire ñoom nag daati nañ koy jàpp mu daati def à une des journaux ndax dafa nekk au cœur d'une polémique bi nga xamante ni ay violation conjugale lay faral di def ay xale yu jigéen yi nga xamante ni day séq ak ñoom ay relation maanaam copine am mu daal di def le tour des réseaux sociaux nag ki nga xamante ni moom moo di Mariama Sow nag nekkoon victime Sidiki Diabaté moom moo génn def ay révélation ndax nee na euh, depuis seen début relation ba léegi rek ki nga xamante ni moom moo di Sidiki Diabaté da koy torturer di ko dóor di ko saaga di ko tëcc euh, ndax euh, moom dafa jàppoon sax ni lool mu koy def peut-être jalousie moom moo ko ci dugaloon ndax elle se disait que ni Sidiki daf ko bëgg loolu moom moo waraloon sax mu doon subir loolu noonu rallonge ak lépp loo xamante ni rek jotoon na ko da ko doon dóor ba pare da ko séquestré woon pendant presque deux mois yoo xamante ni daf ko tëjoon ci kër gi moom nag xale bu jigéen boobu di wuyoo ci turu Mariama Sow moom ab guinéen la moom moo nekkoon copine ki nga xamante ni moom moo di Sidiki Diabaté waaye ginnaaw bi xamante ni nag après quarante huit heures yoo xamante ni def nañ ko garde à vue Sidiki Diabaté enquêteurs yi rek am nañ lu leen doy ba nga xamante nii rek Sidiki Diabaté dina passé première nuit à la maison d'arrêt et de correction Bamako ñu daati ko koy jeexalee ak dernière actualité people li nga xamante moom moo ci gën a fës nag bokk na ci mariage ki nga xamante ni moom moo di Soumboulou Bathily mariage royal de Soumboulou Bathily ak ki nga xamante ni moom moo di sëñ Abdoulaye Diop Xaas nekk marabout tradipraticien moom nag di faj ay feebar yu bari uh, fii nii ci réew ma Sénégal ba ñëpp daati ko ci ràññee moom nag moom moo takk ki nga xamante ni moom moo di Soumboulou Bathily daat koy offert 6 millions ak li nga xamante ni moom moo di pariru or Soumboulou nag démb la amaloon xew fa li nga xamante moom moo di ca Gunaas kër yaayam la doon recevoir li nga xamante ni ñoom ñoo di ay xaritam ay mbokkam ak ay am di jàmmam waaye rek mu mel ni dañ cee ràññee lu baree bari ci li nga xamante ni moom moo di xewu sumbulu ba ndax fépp foo xalaatee célébrité rek fii nii ci réewum Sénégal fàq na daal di dem ca woote boobu nga xamante ni sumbulu bàcc li daal di na koy woote am na ñeneen ñoo xamante ni sax ab juboo amoon na fa ginnaaw bi nga xamante ni ñu bari xamoon nañ Mouhamed Niang ak ki nga xamante ni moom moo di ay Omoro ak keneen ak keneen daaw ñu laale mujjee nañu juboo juboo ca xew moomu noonu na leen fay dajale uh, leneen li nga xamante ni nag bokkaan na ci mooy xew ma dafa bari woon nit ba kenn amul foo teg sa tànk ba sumbulu sax ñu ni dafa defoon ab malaise ba ñu naroon ko évacuer fa nga xamante ni moom moo di ca hôpital ndax fuul bu bari ndax ñëpp ko daa ci wuy si ca bésub uh, keroogam ba uh, leneen li ci fësaan nag bokk na ci sumbulu mi wax ni moom moo nekk li nga xamante ni moom moo di première daam ñu xëyaat rek gis ab vidéo boo xamante ni mi ngi circuler ci réseaux sociaux yi di wane que ni Abdoulaye Diop xaas rek amoon na soxna ba doon ngénte le 16 février passé ci deux mille 2020 bi la doon ngénte jabaram jooju noonu nag internet yi nag di laajte ndax sumbulu aawala wala ñaareel wala li nga xamante ni moom moo di ñetteel waaye déclaration bi nga xamante ni moom la sumbulu def rek mooy firndeel que ni moom moom moo nekk première dame ki nga xamante ni moom moo di Abdoulaye Diop Khass muur nañ ko nag ca guddi ga mu daati fanaani ji kër ki nga xamante ni moom moo di Abdoulaye Diop Khass ba tey rek ci mariage bi la ñuy daal di des ak ginnaaw bi nga xamante ni Abdoulaye Diop xaas journaliste daal nañ koy dékk micro mu dikkaat ci 6 yi nga xamante moom la may sumbulu mu daal def bës bu baax a baax ci réew ma Sénégal ñëpp di laajte ndax 6 millions yi lu am la wala lu amul la moom Abdoulaye Diop xaas nag daal na ci indi ay leeral nee na li mu may sumb lu xeeb na ko ndax nee na jigéen moom lépp loo ko defal rek yaakaar naa ci kaw suuf jar na ko te lépp loo ko may tamit uh, war nga koo mën a xeeb leneen li nga xamante ni jibaat na ci mariage bi ci réewum Sénégal génn rek di def ay prédiction ci mariage ki nga xamante ni moom moo di Soumboulou ak Abdoulaye Diop Khass di xam ne rek ni sëy bi dina yëngu euh, te boo moytuwul sax du yàgg. Internet sans limite TV li leen leen indiloon tey seen émission les buzz du web di leen joxaat dig daje semaine prochaine ak yeneen actualité merci et restez sur sans limite TV.